bon man man en fait lu may wax mooy pour man bonne foi fu mu am rek détails yi yëpp daf ñuy daf daf ñuy teggeeku et je pense que urgence xam nga su ma gisee ñu naan woy règlement intérieur mais lan moo jiitu lool mooy urgence mhm. mooy nga am nguur bu bees nga am ñaari insti gouvernement mënul def dara sans assemblée nationale nekk fi ñu nekk ci pays boo xam ne ak li ñuy traversé ak coono yëpp on est un débat après ñu ne woy léegi procédure bi. Hmm. xaw ma ndax comprendre ngeen fu may waxee cest dire que dafa am ay urgence yu taxaw dafa am kii régime bu bees bu génn bu war a dérouler mais ay considération yi daf ñuy tardeel seen réew mi 4 mois mooy que blocage boobu assemblée taxaw fii ñu tax ni mais entre temps gars yi war nañ dérouler ñu naan dañu ay ay loi de finance dañ ko bloqué mais est-ce que est-ce que on se rend de de la gravité même parce que pour man caprice la bonne fois fu mu am lii ay caprice la et li gën a grave mooy tu sais saa saa yu assemblée nationale nekkee nii ak ak régime sax man bëgguma moi j'ai bien la contradiction mm-hmm. ay woote président ah woote woote président parce que lii mën na sax mën na sax xajamal virulence wala wala profondeur euh, euh, débat bi nar a am foofu parce que wax naa ko fii dama ne wala boo nekkee si nguur il faut accepter la contradiction il faut se mettre devant les gens ñi nga daan jàkkaarlool da nga jàkkaarloo ñoo wax ak ñoom mu am nu ñuy waxee te yii yëpp ci réew mi la ñu ne nag ci réew mi la ñu ne président assemblée nationale mais bu ko président woowee am na ku muy wow xam ngeen baal ma leen di wax. Mm-hmm. ah assemblée nationale du dem seeti président Diomaye Faye te woon ma président Macky Sall bu ko woowee rek woon na looy rey kii neutre. xam nga ah, la mais loolu la mais loolu la. mais loolu la mais loolu la of course. of course. boo woote fii moom ma ne quitte woote fee sax doo ko woote fii. Mm-hmm. parce que apparemment les gens ils se sont parlé c'est important pour ñi nga xam ne ay profane lañu loolu yëpp dañ ci war a jàngat il faut pas gars yi ambale ñu si benn kii ñu foog ni tout est rose fekk en réalité am na ay enjeux yoo xam ne ñun population yi xamuñu ko sax. parce que une crise à l'Assemblée nationale wala potentielle wala soi-disant crise pour régler d'autres problèmes. waaw. Ah on parle de reddition des comptes Ah, ou bien à régler d'autres problèmes. ma ni dafa am ay affaire d'ailleurs non c'est vrai. on est en politique non parce que en fait xam nga lu ma koy wax xam nga lu ma koy wax xam nga lu tax koy wax. boobu fi nga gis sore na de. akay sore akay dëgg akay ah, bi nekk fële il faut ñu woo ko laaj ko. Hmm. mais léegi les gens xam ngeen ni kenn du ñëw rek ne vas yi demal ah non il y a des conditions. il yoo xam ne dañ koy wax xool ba seet nan la ñu mën a euh, bu ma wàññee fii nga wàññi fee. Hmm. loolu moom mooy politique les gens ils vont pas venir rek te déglu ko dañ naan qu'est-ce que tu mets sur la table lan fan la ñu mën a amee consensus mais consensus boobu des fois day am répercussion ci ci population yi tey jii nii on parle de de euh, trois euh, ñaata cent jours yu njëkk yi boo jëlee le discours ak taxawaayu président Diomaye Faye mais vraiment via président euh, premier ministre Ousmane Sonko qui a porté ce projet la mais nga def 100 jours yi tu commences tu te poses des questions question euh, question ou reddition des comptes yi ak kii. c'est très lent par rapport ak virulence su. discours bi ak esprit bi. et c'est des situations comme ça qui peuvent régler quelque problème donc il faut pas que ñu gis les crise comme way daf nekku si woon kii nee na d'accord na. te gisuñu que ni c'est un prétexte des fois pour régler quelques problèmes. c'est des opportunités. c'est des opportunités de pour régler des compr pour non euh, mën na nekk parce que xam nga lu tax des compromis xam nga lu tax xam nga lu tax. donc nga fii kii bi slogan wu gars yi. jubanti les premières personnes ñu war a jubal mooy ñuy jox suñu nguur. ñooy après saytu ji après mais à partir de maintenant bu ñu la ko joxee rek jubal bi man maa la koy wax doo ma ko wax. Mhm. doo ne citoyen jubal jub jubal ah. yow lañ la yow man si toi moo la eh jubal jubanti jub donc pour man ce slogan ce slogan là il doit rendu au peuple hmm. il faut pas que nit ñi approprier parce que y a plus y a Pastef amatul APR amatul Sénégal moo am hmm. bis bi ngañ la fale nga waat teg sa kii fal ministre yi ñu fal d'ailleurs dans les comportement des directeurs généraux et des ministres moi je pense que il faut que ñu am posture état hmm. il faut qu'on se débarrasse de boobu. élection jeex na. maintenant tu tu tu pour Bouba Ndour. tu travailles pour Malal. il faut que nga xam loolu. tu travailles pour pour honorable député tu travailles pour Macky Sall président Macky ancien président Macky Sall. tu travailles pour Amadou Ba. yow yaay léegi kii ki ñuy fal di ko jox suñu kii mooy suñu suñu mindaan la dañ ko fal dëgg la. dañ koy fay mais buuba loolu la gars yi comprendre moo tax ñu ne woon. ñoom seen proposition nga baal ma. c' est très intéressant li nga wax. xam nga nit dafa dafa am xel. Mhm. ils avaient compris cet enjeu. Mhm. moo tax ñu buggoon def appel à candidature. Mhm. wala ñu ne directeur général. doo am yenn responsable. mais léegi parce que lii lañ doon bañ. lii lañ mais bu ndox tuuroo an baax moo des. xam nga dans le comportement lii lañ bëggoon que posture boobu gars yi am. il faut que les de s'oublier. même quand tu gères. un truc privé tu es un directeur général tu as tu dois te faire tu, tu dois t'occuper de comment fonctionne le truc mais tu ne te mets pas devant yow sa image sax moo jiitu l'institution que tu que c'est très dangereux mm-hmm. Mm-hmm. il faut que les gens qui gèrent mm-hmm. ñii ci olof laa ko ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoom ñëpp alalu nguur gi la ñuy yor oto yi ñoo ko moom essence yi ñoo ko moom per yi ñoo ko moom salaire yi ñoo ko moom privilège yi ñoo ko moom il faut ñu comprendre que ni ñun ñoo ko moom ñoom moomatuñ ko donc il faut que ñoom ñu jël seen bopp teg ko ci ginnaaw jël li nga xam ne nit ñoo ko moom ñu jiital ko il les gens ils trop se mettre dañu bëgg trop se mettre en valeur par rapport ak institution boobu te loolu du dëgg du yoon ku ko bëgg dangay dem créer sa yëfu bopp nga dem def li mais li nga xam ne ñëpp ñoo ko moom dañ la sant liggéey defal liggéey bi te nga fàtte sa bopp parce que tu n'es pas l'agence ni le ministre encore moins le ministère c'est important pour que gars yi ñu am kii boobu parce que on parle de cent jours mm-hmm. mais on a combien de sur cinq ans le le chemin il est il dafa dafa kii donc da ngay damay xam nga may bañ si di nga période bi ñun yi ñuy wax ñëpp si beaucoup plus sax ay conseils qu'autre chose mm-hmm. c'est-à-dire que gis nga mm-hmm. affaire bi du course de fond du course de vitesse course de fond la exactement il faut pas que au bout de d'un an yow nga usé wu usé wu si bëtu sénégalais yi oubliez-vous et mettez en valeur li ngeen xam ne moom lañ leen dénk sénégalais jox leen ko ngeen fàtte seen bopp bañ a jël affaire bi man man man man man maa ko xeex kenn xeexul xam nga kan moo xeex ki jël kartam dugalal la ko xam nga les gens dañuy fàtte dara dañu naan kii dafa xeex mais loo xeex xeex xeex te gaañ waa ji voté wu ne di nga rek ñaata nit ñoo xeex te xeex bi njëkk bi gën a bi gën a gaaw ci xeex yi ban la. Bouba ça je pense. non attendez xaaral xaaral xaaral ma daaneel foofu xaaral ma waaw. dama ànd ak yow waaw waaw bàyyi fu may daaneel la dama ne xeex bi gën a moo silvisé te gën a efficace. mooy nga toog non di nga gis nit boo xam ne mu ngi si sa wet ne honorable militant la fekk am na ku la ko gën a bëgg toog këram. mais kooku kooku du yuuxu du kaas du def dara mais xam na ni ak xulaay taalam bu huit jot bu élection yi six heures du matin moo njëkk sax jóg ki ngay ànd ak yow dem voté la pour te dire que appel à candidature c' pas que pour wala mu nomination c' est pas pour pour que ñi la jege immédiat boo ko boo ko génnee nga xam ne am na ñoo xam ne mosoo leen gis te ñu ngi lay voté donc il faut que les no dirigeants la boo xasee ba yor si nguur il faut nga comprendre benn affaire tu deviens ñun suñu suñu surga suñuy soxla nga war a jaamu te booy jaamu soxla da ngay fàtte sa bopp il faut que gars yi ñëpp commencé dox loolu jël affaire bi teg ko ne ah man dañ maa fal askan wi ñoo ma fal man amuma importance lii ñu ma jox mais les gens ils se trop en valeur et ça c'est dangereux te loolu dans la durée. daf lay daf lay daf lay dab te bés bu la dabee di nga xam ni euh, ta euh, yàlla julli la santaan. Hmm. buuba buuba. da ngay tuuti ah, dama bëggoon rek tontu tuuti ci boobu foo